mbokk yi ñuy seetaan nuyuwaat nañ leen ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar di tool yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mu ngi nekkee ci biir Jolof ginnaaw ranch de Dolly mu nekk tool yi nga xam ne door nañ liggéey bi depuis euh, lundi dëppoo le 7 mars 2022 nga xam ne taalibe ñëw nañ tey ji ñu nekk ci juróomi juróomeelu fanub liggéey di liggéey bu am solo boo xam ne taalibe yi bés bu xëyee ñu ngi ciy def Pastef ñëw ci tool yi ngir euh, jële fi li nga xam ne moom moo di ëkk yi euh, setalaat tool bi gor garab yi lépp rek ngir waajal tool bi ruuj ko defar ko ba di nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee moom sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Xaadir mu mën koo amee noonu moom moo tax euh, incha allah gis ngeen taalibe nii suñu ginnaaw nga xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi nga xam ne naajagul sax euh, daanaka man su ma xoolee li nga xam ne moom moo di euh, suma montre daanaka fi mu toll nii mi ñu ci 9 vingt 24 nga xam ne xëy nañ bu yàgg. liggéey bi nii lañ koy wéyalee nga xam ne dañuy dem sax ba yenn sax yi añ sax daanaka mën na leen fekk ci euh, tool yi lépp rek ngir bëgg li nga xam ne moom moo di bëgg bëgg sëriñ bi ñu defee ko ni nga xam ne noonu la ko bëggee kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu dugg ci biir tool yi xool ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, taalibe yi niñ nekkee ci biir euh, liggéey bi waaye jël réaction ñenn ci jëwriñ yi nga xamante ni fekk nañ leen fii ñoom it ci liggéey bu am solo bi xam naa kenn ci ñoom sax sëriñ Mamour Mbaye mi ngi nii Euh, tey moom xam naa ne euh, ku la xool du ne euh, animateur bi la gis wala présentateur bi tey taalibe bi moom moo ñëw ci tool bi liggéeyal Serigne Touba ndax fépp fu mu murid nekk rek ambassadeur Serigne Touba la fa rawatina bu ñu ñëwee ci tool yi nga xam ne dañu war a liggéey Serigne Touba bu baax a baax ak casquette bu ñu mënti yor Mamor bi nga ñëwee ci tool yi la nga yëg. jërëjëf maa ngi ziar bu baax a baax mboolem téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi. yàlla dogal na altine ba tey wax nga dëgg noo ngi fi waaye danoo namoon ay tool lii noo ngi ko gëj a def ca jamonoy Serigne Saliou xam nga sax Serigne Cheikh magi sëñ Basiirum sëñ Abdou Khadir nga xam sëñ Cheikhum sëñ Abdou Khadir sëñ Cheikh moom Serigne saaliw ku ne gis na ko ni ñu ngi ci tool yi waaye ñoom tool yi ñuy nekk mooy dañuy ruuj dal di daal di bay woonu ci ndéqi wooñu ci jëri wooñu ci ngóob waaye gor gor moom ñu ngi ko gëj a defee ca yi Serigne Saliou waaw mu mel ni benn benn benn mbir la woon bu ñu ngombe woon ba Serigne Bassirou Serigne Abdou Khadir moo tijji ngomb bi tey boo gisee murid bi ñuy ñëw fi mu nekk ku dugg ci internet bi li ngay kaas mooy lu tax yëguma ko xoola lu ñuy def léegi machine da koy def mais lu tax murid yi indiwunu machine ne ñoom ñooy ñëw fim mu ne ñun ñi ñëpp bu loon a gants yi yàq suñu loxo yàqu na mais sedd bii munu indi ci lii la mag ñi amee ngërëmu sëñ Tuubaa ñun ci loolu la ñuy sàkku di déglu ndigal rek su ñu waxee bayil ma bay su waxee liggéey liggéey oh. ñu déglu ci suñu bay dàng rek oh. waxee bay leen ñu bay wàcc leen ñu wàcc <laughs> ñu déglu ndigal rek taal moom ndigal rek. suñu bas Abdou Khader macha allah taxawaay moom rafet na lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax rafet na lool ci liggéeyal suñ tubaab bi waaw macha allah moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu boroom yàggal ko fi waaw. bu ñu demee ba mujjum jamono nga xam ne jamono ji dafa yëngu. ñu lay xëyloo ci liggéey suñ Touba di la ci gontuloo kon war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax a baax moo tax ñu ngi ñaanal eh, suñ a mu yàgg fi loolu di ñaanal suñ Basiru mu yàgg fi di ñaanal suñu jàmbaar yi muy Cheikh Ismaïla Diouf yal na ko fi yàlla yàggal muy liggéeyal Serigne Touba ñu nekk ci ginnaawam di ko liggéeyal waaye xam ne sëñ Touba morom rek te xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Basir moom mooy lépp moom mooy Serigne bi rek ci ñun te mooy suñu bunt ci Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal mu yokk yàgg te wér waaw ci kàttanu suñu borom ak tawfeexam te xam ne fii ku fi ñëw rek maam sëñ Tuubaa nga liggéeyal ndax moom sëñ Tuubaa rek la léppam sëñ Tuubaa la bëggam sëñ Tuubaa leer na ñëpp te xam ne ni moom léppam sëñ Tuubaa la moo tax ñu teew bisam bi te duñ ko yemaleeg len waaw fu mu ko woote ñu jëm fan waaw en tant que taalibe daal wax dëgg yàlla sant nañ suñu borom ba mu ñu dimbalee ba ñu fekk liggéey bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bañ fekk liggéey bi di ko jëfal yàlla nañu ko nangul ci mbaaxam ak tawféexam bi yàq alxuraanu karim yàlla na yàlla defal ko tawféex guddal fanaan wéral cëram bi yàq alxuraanu karim waaw sant nañ bu baax baax manam i santo seigne ismaila ino fog sereer waaw ndax kat i njegay ka andoona yee o leŋ jegiran i mbar o santito a roog to i ndama o layaa ba ibrahima sene layu le ka faak te refo xane kon i mbara mbetandoox o faak laam xane o leŋ ke leŋook mbi'oona leŋ ndam nu kene ku ta re'na ranga ko kanga yok bo nene we eetna na seigne touba xe dara den xa tax ɗune ka liggéeyanoogi seigne touba kon fat i ndakwiid liggéeyanooyo seigne ismaila ngir i ndaab wa faak kene te refo a o fokata noqol Serigne Touba no Serigne simala rek ta jeg tu yakar in xane o feet o leng kut o leng kut tada Serigne Touba jàmbaara ne na Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulah kaddu yooyu daa mel Serigne Mountakha moom xam naa naa la ko tekkil incha allah <laughs> asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi mbokki jur yi fi taw ci wuy si yitte ji nga xam ne ci njëkk day yitte Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha li tax mu yitteem fii Cheikh Mouhamadou Bachir sëñ Abdul Xaadir moo toppatoo suuf si kem ni ko wéjjur yi mu daan defee dem ci àll gor ko ngir bëgg faa xeet li jullit ñi ku ne xam na ne eh, suñ kilifa yi ku ci ne fa ay toolam nekk ba mu koy wut wut teraanga rek taxut ñu di ko wut ndax koo xam ne foo nekk da nga mënta ñàkk di la fa fekk sooy wut àll bu mel nii di ko gor bëgg a xeetali doomu aadama yi rek moo tax ak bëgg suqali koom-koom réew mi xam comme bu réew mi amee koom-koom rek kenn ku ci ne am nga ci wàll te sëriñ bi li mu daan dénk mooy bi ci njëkk mooy ñuy jaamu yàlla bi ci topp mooy ñuy liggéey kon loolu bëgg dimbali nit ñi eh, bëgg leen a wutal ngaramul yàlla ak bëgg leen a wutal teraanga yi tey eh, moo tax ak ëllëg Cheikh Bassir mi itam loolu mu ñoon fekk way jur yi mu nekk ci rek loolu la yeesalaat tax mu wut suuf si Euh, yëgal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jox ko tur wi tuddee tool yi xisnul abraar ah, Cheikh Mouhamadul Mountakha itam ci yitteel gu ko liggéey bi yitteel ci la ma jël man mi yónni ma ci Cheikh Mouhamadul Bachir ci luy tax liggéey bi sotti euh, mu yónni ma ci moom hmm. ay teraanga yu ñëw ci liggéey bi ngir bëgg liggéey bi rek mat mate sëkk Cheikh Mouhamadou Bassir sax moom bëggutoon sëriñ bi def ci dara waaye yéene ji mu am ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ñeewantu googu moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha itam am ci moom ndax bi mu yónnee ci moom bu noppi itam dama jox ndigal ci ne nan soññi waa dëkk ba ndax Daaru mu Saloum dëkki Serigne Mountakha yi Daaru mu Saloum moo fi gën a jege ñoo ngi sant nag mbokki jullit yi mbokki taalib yi bàyyi seen seeni liggéey bàyyi seen i seen nekkuwaay ñëw ci wuy si Cheikh Mamadou ci liggéey bi ñu ñaan yàlla mu nangu seeni jëf kenn ku ci ne aaju jëm fi indi suñu borom fajal ko ko. kon nag sëñ Muntaxa moom ku ne xam na ne lu muy dugg lu ne yéene waaleen na ci ñëpp yéene waaleen na ci ñëpp euh, loolu moo tax ginnaaw man xam naa yéeneem ci liggéey bi ndax euh, jëfam jëf daa bokkut ak wax te jëf la ci tàmbulee door noo digal ñu soññi njaboot gi ñu àndandoo ñëw ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Ousmane Ndaw lañ ma yombal nag jëwriñu sëñ Abdou Karim laa mu sëñ Fallou borom makaarimal axlaax waaye dañoo bokk ak ji nga xam ne muy sëñ Modou Mbacke mi nga xam ne leeru sëñ Moustapha Bassirou la te mu féetee Saalum Kaffrine moo ñu jox ndigal ñu ànd ak moom ñëw ci liggéey bi tey liggéeyu sëñ Bass Abdou Khadir bi waaw ci ruuj mi waaw. xanaa am mbégte rek xanaa kay ab murit dafa fekk ne sa sëriñ su la ci liggéey bu mel nii dañoo ah, yéene rek dimbali ñu ak ndimbal dong la ci jublu. moo tax ñu am ci mbégte lool fas yéene ànd ak moom ba liggéey bi jeex su ànd ak dogalu suñu borom. ndongole mi ngi tudd Abdoulahi Badiane moom Cheikh Abdoulahi mbay Kéré mbooloo mi ñu àndal ñëw fii mbooloom Cheikh Abdoulahi mbay Kéré moom Serigne Abdoulahi mbay Kéré moom Serigne Makhtar Mbaye Kéré soobu ci liggéey bi ni ko Serigne bi bëgg rek ñu fas yéene doxe doxale ko noonu mooy gaji geer yi déjjati ëkk yi leeral ko ba mu leer nim kem ni mu ko bëggee noonu la ñu sababoo ñëwee. positif rek ndax ñun amuñu ak bëgg akuk bañ li Serigne bi bëgg rek loolu mooy sunu bëgg-bëgg li Serigne bi bëgg rek. mooy sunu bëgg-bëgg te sëriñ bi ko jox ndigalit it liy bëgg-bëggam mooy ñu ñëw defaral ko tool yi te amuñu ku ñuy déglu ku dul moom mi di Cheikh Abdoulahi waaw ndigal pas-pas boobu rek it moom la nu am ngir ni ko sëriñ bi wóoloo ba teg ko loxoom ci loolu ñu ñëw jëfale ko noonu rek loolu mooy pas-pas bi. waaw liggéey bi rek bu buñ fi dee dëkkit nag dañ fiy dëkk di ko liggéeyal waaw incha allah.